taarixu Sénégal li ni mel di fi am. pour ce qui concerne. si mbirum commission d'enquête bi mennum résolution moo mën tax ñu taxawal ko waaye li ñu seetlu mooy kenn deful loolu si lu ñu xamoon assemblée nationale ci boppam moo mës di taxawal ay commission d'enquête ci sunu taarix. l'assemblée nationale. gannaaw bañ ko sàkkoo yëf yi ñoo ngi koy jëmmal naam nag waxtu boppam la daal di am. bu dañu war a dajee defar seen agenda def ay audition xool ñi nga xam ne la ñuy léegi soumettre ko plénière plénière bi nag bu boobaa moom mooy décider ndax day valider seen rapport boobu ndax da koy da koy rejeter ndax aussi tamit da koy déclassifier pour permettre population yi yëpp ñu am ci ay information boobule enquête parlementaire bi ñëwaat ci anam gi ñu génnee candidat bu wàllu Karim Wade ci présidentielle bi lu bari mënees na kaa gantal bu ñu sukkandikoo ci ki fi nekkoon ndawu réew du jur lu bari rawatina surtout sax bi nga xamee ne dégg nañu si juge yi ñu taxal am na kenn ku ci déposé plainte sax ne suñu ubbee si fee yi nga xam ne déjà moo tax ñu créé commission parlement commission d'enquête parlementaire si si juge bi ubbee suñ si ubbee information judiciaire commission bi dafa war a dafa war a na saxaay ay dispositions yu ci mel di article 93 ñoom nag doole gu bari la ñu daal di jox magistrat yi ñu daal di koy awale ci privilège de juridiction maanaam li la sa liggéey daal di may pouvoir yi ni ku nekk moomee boppam pouvoir yi mënees nañ boole seen doole ba leeral askan wi si lile jongante bi ndaxam dinañ ko dàq am déet lu ci mënti ne Karim Wade ak i àndandoom ñam jàpp nañ ñi am nañ ndam